سمح الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه سيدنا محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي maa ngi nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yépp ci jataay bi di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa bashir Mbakke di ñaan yàlla yàggal ko fi te yokk wéram di teg ci nuyoo bi sëriñ Isaaxa Mbakke mi ka fi teewal ak njabootuk Cheikhul Xaddim gépp di nuyu sëriñ Cheikh basiiru Mbacké mi yor kàddoom di nuyu cheikh yi ak magi taalibe yi teew yépp ci jataay bi di nuyu ñi fi teewal kër yi diine sëñ cheikh Sidi Mokhtar Ka lim na leen léegi waaye tamit di nuyu ñi fi teewal mbooleem jataay walla organisation islamique yëpp maa ngi nuyu tamit corps diplomatique bi nga xamante ni ñoom ñoo fi représenté seen réew di nuyu banqaas yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi ak fu ñu mën a féetewoo waaye di nuyu mbokku taalibe yi ak mbokki jullit yi ak mbokki réew mi yépp ni mu baaxoo amee at mu ne son excellence le président de la république Macky Sall di taalubéb sëriñ bi di doomam waaye di soppeem moo ñu fi yabal ñu ànd sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Ka tamit leeral na ko léegi ak sama nataangoo yi nga xamante ni teew nañ fi ñu ràññee ci madame le ministre de la femme et de la famille madame Ndeye sali Diop jen mi ngi feggoo ak le ministre Dame Diop mi yor wàllu xëyu ndaw ñi mi ngi dend ak le ministre Pape amadu Ndiaye mi yor artisanat waaye tamit mi ngi nekk ci wetu le ministre ba jatara bi président dénk wàllu économie numérique ak xeeti xarala yi nga xamante ni ci lañuy ñuy jokkoo gouverneur u Njaareem mi ngi ci délégation bi ak préfet wu Mbacké ak sous préfet wu Ndaam ñu ànd tamit ak le ministre conseiller Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma mu taxawee ñaari tànk ndax bokk na ci délégation bi waaye bokk na tamit ci comité d'organisation bi ñu ngi ànd tamit ak le maire de Mbacké Gallo Ba ànd ak le l'honorable député maire de Diourbel Malick Fall ànd ak chef de service yi nekk ci région bi yëpp ànd ak force de défense et de sécurité président de la république ñëwoon na fi gaaw bi ñu génn waxal ko boppam waaye bi ñu jógee bay ñëw yóbbante waat nañ ngir ñu feddali diggam ak sëriñ bi leeral fa mu nekk mooy fas yéene liggéey ci wetu sëriñ bi ngir naal yi nga xamante ni amal na ko maamam suñu boroom yeggale ko ak jàmm te ñépp jariñoo ko bisu tey nag bisu cant la président de la république Macky Sall yabal ñu ngir ñu teew ànd ko ak taalibe yi waaye ànd ko ak jullit yi santale sëriñ bi boroomam nim ko santaane woon te kenn natablewul li nga xamante ni mooy solo waaye njariñ li bisu màggal bi am ndax day boole xolu doomu aadama yi nekk ci réew mi ak ñi nekk feneen waaye di bennale doomi réew mi ak di bennale jullit yi ak fu waay mën a féete ci réew mi jataay bu rafet bi ñu teewee ci boroom xam-xam waaye ñi bàyyoo ko ñu bawoo ci këru diine yu ne firnde la ci li jiitu muy doon bisu cant bisu tiis la woon te loolu xam naa saa su nekk waxtaankat yi ñi koy fàttali waaye ki njëkk a jël kàddu di Cheikh Sidi Mokhtar Ka fàttali na ko sëriñ bi santaane woon ci ni bu ñëwatee képp koo xamante ni sama mbég sa mbég la na nga ci ànd ak man sant le ma ci yàlla te bis boo xamante ni def nga ko lam ca dëlale mooy bu ñu yeggee ca aljana ja bu ca yeggee sa ndab dina ñëw bu xéewal yi ak teraanga yi wesaroo loolu mooy li nga xamante ni moo waral son excellence monsieur le président de la république Macky Sall yabal ñu fii ngir ñu ànd ak yéen bis bi sëriñ bi waaye tamit bokk liggéey bi loolu moo waraloon tamit bi ñuy séntu bis bi ñu àndoon ak comité d'organisation bi service su état bi yépp mobilisé wu ngir liggéey ba bu ñu yeggee ci bis bi ñu am ci lu kawe suñu njort lépp yéwén te loolu yaakaar naa sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Ka am na lu mu ci wax léegi président de la République son excellence Macky Sall am na liggéey yu bëri yu mu def ci dëkk bi am na tamit yu fi sumb am na yu ci yuñ ci jot a leeral léegi fàttali ko muy ci wàllu assainissement bi di ci wàllu ndox mi ñuy naan muy eau potable di ci wàllu wér-gi-yaram di ci wàllu tabax yi ñu ràññee ci hôpitalu Cheikhul Khadim waaye tamit di ci wàllu tali ren nag dafa dëppoo ak màggal gi dugg ci nawet te xam naa ni at yi ñu jëm tamit màggal gi bu soobee suñu boroom ci biir nawet lay nekk moo taxoon am ay matuwaay yu bari yuñ ci jëloon jëmale ko ci wàllu assainissement am na liggéey yoo xamante ni ci ndigalu président de la république Macky Sall état bi jot na ko fi def jëm ci yokk beneen bassin bu bokkuloon ak ñaar yi nga xam ni amoon na fi nekk ca Daaru Rahman ak ca Pofdi bu bassin wu Kër Ñang bi taataanee li nekk ci biir dëkk bi yépp fa la ko daan yóbbu waaye ren dafa am lu bees lu ci dugg muy bassin ba nga xamante ni dafa nekk kër kàbb toll ci 60 hectares son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ni ñu dolli ko ci loolee nag dafa bokk ci benn programme boo xamante ni tàmbali na ko muy programme mu 23 milliards jëmale ko ci assainissement wu Touba ci wàllu forage yi tamit am na fanweer ak ñeent forage yoo xamante ni mu ngi nekk en service te loolu yëpp lim ci jublu mooy ni mu ko waxee woon nar a sax ci loolu nekk ci wetu sëriñ bi ngir lépp loo xamante ni sumb na ko mu ànd ak moom ca loola ba suñu borom def ci li gën mooy tawféex juddoo ci jëm ci taalibe yi waaye jëm ci mbokk yi jullit yëpp. am na lu sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Ka fàttali léegi muy ni nga xamante ni moom la sëriñ bi nekkee woon sëriñ tuuba ku ne xam na ni dundam dundam gépp da koo jox boromam nekk ci jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi nga xamante ni ñu ngi ko ci santale boroomam fàttali naa léegi ni laata muy doon bisu mbégte. ak bisu cant bisu tiis la woon waaye nattu yi nga xamante ni daan ko toggoo muy ñëw ci moom at mu jot muy sentu yu gën a diis yooya mësta tax mu yëkkati ngànnaay wala mu yëkkati fitna moo tax da daan fàttali saa su ne ni jihaadam mi ngi koy def ci jaamu yàlla ak liggéeyal seydina muhammad aleyhi salaatu salaam ba ca njeextalu bayit ba ma cay wax ni liikat kat sans borom rek laa ko seedeloo lii nga xamante ni nag mooy nawetu ren bi te ñu nekk ci màggal gi wax nañ ko léegi fàttali ko bi muy tàmbali amoon nañ ci njàqare waaye ci jàppandalu ñaan yi ak ci taxawaay yi sans boroom sotti na ndox mu bari mu indi loraange ci yenn doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi yeewoo ci réew mi fii ci tuubaat am nañu fi loru ñu leen di massaw di jaalewaat ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakken waaye ba mu amee ca saasa le président joxe ndigal ni nañu taxawu képp koo xamante ni aajowoo nga ñu ñëw ci sa wet indil la li nga xamante ni moom mooy soutien wu état bi ba tax na mu déclenché woon plan Orsec bi lii nag nga xamante ni moo des suñu diggante nawet bi sëriñ bi président mi ngi ñaan yal na di ko ñaan sëriñ bi mu ñaan ko xam na ni naka jekk ci loolu la nekk di ñaan suñu boroom yeggale ko ak jàmm mu doon nawet bu barkeel te bu barkeeleet ñi nga xamante ni ñoo doon bay tool yi waaye nekk ci biir réew mi ñun ñëpp ñu bokk muurloo ko loolu mooy li nga xamante ni moo doon kàddu yi ma président de la république son excellence Macky Sall yow ni woon ma ànd ak sama nattango yi ngir jotale ko sëriñ bi di leen sant di leen gërëm di ñaan sans borom ci turu président de la république Macky Sall sëriñ bi yàlla yokk kattanam yokk wéram ñu yàgg ko fee fekk di yàgg ànd ak moom bis bi wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. jërëjëf. ministre. ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi